Mary Teuw Niane moom euh, peut-être universitaire la bi muy wax waxu waxu waxu waxu waxu scientifique la wax waaye diine dafa dafa dafa toll ci ñun foo xam ne moo raw science ndax diine yëg-yëg la te gàmmu ak màggal du dara lu may jamono yi jaamu suñu boroom jamono yi euh, diisoog suñu boroom jamono yi ñaan te comme niñ ko waxee jullit amul lu may ñaan donc euh, ni mu waxee damaa jàpp ne ci biir action rek la ko waxee noonu waaye bu toogee ba toog dina xam ne euh, ñun jullit amul lu may ñaan te te gàmm ak màggal ah, euh, am na lu fi yàgg xew lu fi am te mënuñu terewuñu ko woon ñu def ko waaye nag murit aussi ji ma doon am na loo xam ne mooy mooy mooy mooy cëram ak wàllam mooy déglu ndigal waaw ñun ñoo ngi ci ci ginnaaw sang bi lu mu wax rek noonu la. Mary Teuw Niane est un intellectuel qui peut-être euh, lors de la déclaration lors de sa de de de de de cette émission a voulu surfer sur l'aspect euh, purement scientifique alors que nous avons tous appris que la religion c'est pas c'est pas c'est pas de la science c'est des, ça, ça, ne se prouve pas, ça mm-hmm. Donc le mouridisme euh, est, est, plus, est plus, est fort et nous sommes foncièrement ancrés à ces convictions euh, d'abord musulmanes, mourites, euh, parce que euh, notre arme, comme aiment nous le rappeler, euh, nos, nos érudits, c'est la prière. Et que le gamme et le magal sont des occasions de prière. sont des occasions de, de, de grâce, sont des occasions de, de, communion avec Dieu, avec ses écrits. Donc je pense que vouloir euh, de, sur un, euh, sous le feu de l'action, vouloir euh, prôner la suspension ou le renvoi du gamou et du magal ne me paraît pas très indiqué.